présidente la sargal juróomi at yàgg na keroog j'ai pas eu la chance nga am yar lool ami teggin li nga nekk du dara c'est la constance li nga xamante ne moom la nit war a def buy ànd ak nit comme ni ma àndee ak président Abdoulaye Wade ba tey ma ànd ak délégation yëpp dem déposer ji caution wu Karim félicitation félicitations les gars le candidat Karim Wade a déposé sa question Lat Diop maa ngi lay nuyu ministre des sports di la ziar di la laaj waa Géejawaay di nuyu sa njaboot mais di nuyu sa daaj gisuma ko ngom ñaar sama doom boobu le gardien du temple laa ko tuddee ministère bu amul ministre ay fani fan moom ñu ak secretaire général yeeg ñooñu ñu di ko garder ba nga egsi ñu jox la ko nga dëkk Géejawaay ñu bokk le département le grand département bi nga xamante ni Pikine moo ko meññ ma je pense que su ma ñëwoon fii nii sëñ ci félicitation sax xam nga li ma bëgg wax mun naa dem toog boo sport ngay gis stade ngay gis ay pàkk yu ñu wàkk yu ñu yu ñu gas di ci football ngay gis ay xale yu leewaatoo ngay gis le sport c'est le favori des Pikinois et Pikine moo jur Géejawaay Pikine moo jur Kër Massar je pense que benn affaire rek laa la mën a wax statu làmb bu baax lañ am mais mooy stade bi nga xamante ne bërki démb lañ ko defar vraiment inauguré ko nous vous en félicitons di leen félicité bu baax encore une fois ci stade bi nga xamante ne moom lañ defar yóbbu ko ba jam ñaaj ñu tuddee ko Ablaye Wade du tere telu Ablaye Wade moom anyway everything every day ci kaw rek mais ma bëggoon nga gëstuwaat Pikine camp bi président président Macky Sall dafa defoon réserve sept euh, quatorze hectares la ñu wax super jiw pour reloger les les les gens qui ñi nga xamante ne ñoo jóge ci terre bi les impactés du terre wante ñu desal fa ab ab ab ab suuf. suuf soosu ñu fa defal dos defal bis bu jot ñu ñaan ci stade stade boo xam ne xale yi dinañ bàyyi sunu kër yi ñuy dox di footballantu parce que am nañ stade am nañ Alsane Digo boo demee am nañ côté terrain centrale am nañ Amadou Bari et tout sa koñ mais amuñu stade yu ndaw ndawaan stade mini stade mini sport yooyu yooyu lañ buggoon ku ñu ci jàppale pour xale yi di am fu ñuy petit camp jàppale suñu équipe yi parce que suñu équipe yi nawetaan. dañ ko war a xoolaat xoolaat forme bi ñu koy defee xoolaat aussi temps bi ñu koy defee parce que nawetaan actuellement dafa dem ba dafa dugg ci li nga ne mooy année scolastique yi donc je pense que c'est des organismes yoo xamante ne ministère bi daf ko war a jël en possession organiser waat ko xoolaat ban temps lañ ko war a def ak ban temps la ñu war a jàng loolu am na solo ci man monsieur le ministre làmb dañu amoon dañu am stade mais amuñu accompagnant maanaam dañ ñu digoon nañu ci wetu stade eh, ci wetu stade boobu nekk Pikine arène de lutte bi dañ ciy def police police bi moo waroon nekk ak ba léegi gisaguñu police aale muy njaay ba tey nu nu koy dégg di nu nax Pikine soxla na loolu soxna refection waat suñu stade boobu ñu am nga xamante ne mooy terrain central fa ñuy fubalee suñu nawetaan yi eh, comme ni ñu wax nag eh, damay daanelee sama kàddu ci basket bi man daal ministère bi dama ko mës a voté depuis Matar ba sama rakk ji maa ngi koy ziar bu baax ablaat mais dama bëggoon nga xam ne euh, sport bi basket bi ci la bokk man dama dem basket wàcc basket gis ñu jox leen ay prime yoo xamante ne dafa daw sama yaram keroog man nag handballeuse la mais je sais que basket bi bokk na aussi ci discipline Sénégal ñu yëkkati leen parce que au moins dinañu indil dara di féliciter waat les lions du Sénégal les lions de la Teranga di féliciter waat basket bi handball bi le les sourds muets nga xam ne sama rakk Aziz Dieng moo leen yore et tout le monde monsieur le ministre bon vent je vous souhaite vraiment une grande réussite vous êtes un homme bon merci vous êtes en terrain